pour jàppale ko Gambia euh, si seen budget bi nga xamante ne rek war nañ koy am ci at bu bees bi mu di atum 2020 ndaw yuñ tuppee ci young euh, Gambian industrialist ñoom nag ñoo dem euh, gis yi njiiti réew mi di président Adama Barrow wax ko yéene bi nga xamante ne moom lañ am pour defar ay yoon ci capital bi mu di jul ci xibaaru bitim réew yi foofu foofule ci réewu Malawi nag am na report bi bàyyeekoo ci seen Human Rights Commission bi di tuumal police yi ne dafa am sàkku bi nga xamante ne sàkk nañ ko ci ñenn ci ay jigéen yu dëkkee ci biir réewu Malawi président Donald Trump nag ay député ci pencam réew mi ci réew United States of America génnee nañ ko ci boppi nguur gi mu des nag euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Sénégal si euh, pour ñu euh, dëggal loolu waaye tamit ànd ak loolu waaye jamono ji Africa ñu ngi laajte seen bopp ndax ñoom i tamit mun nañoo def lu nu mel ci seeni njiit yu leen jiitee Guinée Conakry ñu ngi waajal élection yu tar ci seeni i biir réew ci at bu bees mu di atum bokk na ci parliamentary election ak presidential election mbokk yi xibaar yeeg yeneen xibaar ngeen teew lu ñu jublu ci faram yi. mbokk yi su ko defee ngeen teelu rek ñu jublu ci faram fàcce yi Euh, TRRC bi mu di Truth Reconciliation and Reparation Commission bi nag euh, daal di nañ euh, tànn ki nga xamante rek mu ngi wuyoo ci Abdou E Mané Abdou E Mané nag nekkoon député ci Alaaji Seydi Baro mu jiite woon lu jëm ci wàll wàllub research and investigation si moom nag gannaaw bu mu tekkee am na mbal tànkam daal gis nañ ne jël nañ kii di député bi ci jamono yooyu mu di Abdou E Mané pour mu utu ko ci place boobu nekk directeur bu research and investigation ci TRRC bi mu reconciliation and reparation commission bi moom Mané nag tànnoon nañ ko dugal ko ci biir TRRC bi mu bokk ci research and investigation unit bi ci atum nekkoon ci gannaaw kii di Alaaji Baro léegi nag moom moo jiite buntu boobu ci TRRC bi ñu teewli si Maymuna Juufa TRRC nag dañuy am ñu research director bu bees ñu research director bu bees bi nag suñu waree xool ci wàllum jàngam ñu ne nag am na masters degree ci security strategy ak management mu ngi ko jàngee nag ci ab ci ab institute bu ñu xamee ci security science foofu noonu ca tokis National Policy Academy ca dëkk bu ñuy wax Ankara mu ngi tamit am bachelor of laws ñu gën koo xamee ci eh, LLB. LLB bi tamit mu ngi ko amee ci university bu eh, Gambia ca law school moom Abdou nag ñu ngi ko oo ci Gambia ba janvier 2015 lañ ko oo ndax dafa nekkoon ki nga xam ne dafa qualifié yoon nekk legal practitioner ci octobre atum 2016 emut ci loolu rek nekkoon na police superintendent te it moom Mané nag liggéey na ci prosecution ak legal affairs unit bu uh, Gambia police force te it tamit 2018 bokkoon na nag ci ñi nga xam ne nag bokkan na ci ñi draft uh, police constitution boobu noonu ak uh, ci Gambia national security police bi lee bi léegi nag si jaar-jaaram rek wax nañ ne nekkoon na li nga xam ne nag mooy part time lecturer maanaam daf doon jàngale foofu noonu ca constitutional law bi nekkoon nag euh, contract law foofu noonu ca Gambia legal system bi tey nag def na li nga xam ne nag mooy criminal procedure ak employment law foofu noonu ca Gambia Technical euh, Training Institute ñu gën koo xamee ca GTTI ak West African Insurance Institute bile. gannaaw nag buñ ko jëlee ci TRRC bi pour mu nekk investigator ñu ngi ko jëlee ci septembre 2018 maane nag ba mu nga nekk membre bu Gambia Technical Committee ak euh, Transitional Justice ndax bokkoon na ci ñi nga xam ne nag ñoo demoon jàng ci South Africa balaa nag ñuy def TRRC Act bile. ki nga xam ne nag mooy si executive secretary bi ñu gën ko xamee ci docteur Baba Galle Diallo mu ne nag Abdou daal fu mu nekk ni liggéeyam bi nekk na li nga xam ne nekkul liggéey bu ndaw kon nag liggéey bi su ko bëggee def foog mu sol daala bu mag comme ni ko Alaaji Baro mi fa nekkoon defee ko woon. waaye moom docteur baaba Galle nag mu ngay xamaliti ne moom nag amul benn sikki saaka ndax ki nga xam ne nag mooy Abdou ak tiimam moom nag gom na ne dinañ mën a liggéey liggéey bi nu mu waree ndax nag am na yaakaar ci ñoom. gannaaw bi nga xamee ne wax nañ ne ki nga xam ne nag mooy former director bu investigation bu TRRC nee nañ nag su demee dina nekk li nga xam ne du baax ci investigation unit bi foofu ci TRRC waaye ki nga xam ne nag mooy docteur Baba Galle Diallo mu ngi leen a xamal ne ki nga xam ne nag moom mooy Alaaji Baro dem na waaye demul ba léegi ndax mu ngeek ñoom te dina dina continuer di nekk seen adviser su ko defee nag liggéey bi gën a continuer te it mu ngay xamal nit ñi ne Abdou mii dina mun a def liggéey bi nu mu waree ndax ki nga xam ne nag mooy Alaaji Baro moo ko jàngal liggéey bi ak liggéey bi nu mu war a demee moom Alaaji Baro daal wax na ko abdu kon nag liggéey bi dina continuer te dina dem ni mu war a demee ndax nag dafa mel nii rek papa ak doom ndax ki nga xam ne nag mooy Alaaji Baro nu muy liggéeyee noonu la kii di Abdou ak tiimam di continuer di liggéey moom docteur jaalo nag gannaaw bi mu defee announcement bi wax na ne kii nga xam ne nekk mooy Alaaji Baro mu ngi nekk ak ñoom ba léegi ndax dina continuer di nekk seen advisor ci wàllum euh, research investigation unit bi le mun a nag ñoom ñu ngi daal di kontaan ndax nag dafa mel ni dem na waaye demul ndax mu ngi ak ñoom ba léegi te nag xam naa ne investigation unit bi dina continuer di gën a dafa liggéey bu xarañ lool Maimouna Diouf Star TV News jaajëfal Maimouna Diouf ci xibaar boobu euh, Doudou Sano mi nga xamante rek advice la maanaam bokk na Eh, ci ñuy xelal njiitu réew mi di président Adama Barrow lu jëm ci wàllu eh, politiku réew mi eh, moo ci ay kàddoom nag àggee ko njiitalu parti bi di United Democratic Party bi di wane nag ñoom dañ nekk di faxastal njiiti réew mi di président Adama Barrow ci jiite bi mu jiite réew mi li ko waral daal mooy pour bugga rek seen leader bi mu di Loya Ousseynou Dabo mu jiite réew mi nekk président bu réew mi kii di Doudou Sané nag kàddu yi mu ngi ko garale ci interview bi nga xamante rek am na ko ak TV eh, ci ay kàddam nag daal di na joxoñ baaraamu tuuma ki nga xamante ne rek moom moo nekk aji yam eh, Seck eh, ne daal moom ci boppam moo bugg a faxastal kii di président bi di Adama Barrow waaye tamit daal di fexe ba gis ne daal kii di lawyer Ousainou Darboe dina jël lenge yi jiite réew mi xibaar boobu ñu teewli si ak Omar Tunkara Doudou Sano mu doon koo xam ne turam fës na bu baax a baax nag ci réew Gambia ci wàllu politique bi moom nag fan yi am na kàddu yi ne yëkkati nañ ko daani koy gaarale waaye tamit sànni ko ki nga xam ne nag moom mooy Adjie Seka mooy député parti leader bu United Democratic Party bi ak Ousseynou Dabo mu jiite parti booba Doudou Sano nag ne ñaar ñooñu daal UDP bu demee daal ba parti bi di daan wala ba muy dee ci mi ñaar ñooñu nag ñoom ñooy bi ndax nag mu ne daf mu ngi fàttaliku ne dafa amoon meeting bi am foofu la sa Banjulinning foo xam ne dafa amoon benn groupe boo xam ne bi nekk foofu la sa Banjulinning bi ñoo ooyee saabal yi ñoom nag ñoo dogaloon ne léegi daal pare nañoo génn APRC nag ñoo bokk ci parti bi di UDP waaye nag ñu ne foofu nag la moom ki di Adji Yam Seck daal di wax ay kàddu ne euh, atum 2021 nag si presidential election si Darboe nag moom mooy nag seen i presidential candidate maanaam moom mooy ko xam ne parti bi nag dinañ ko tànn su ko defee nag mu bokk si jongante presidential si nag fii ci Gambia saanoo nag mu ne Adji Yam Seck kàddu moom kontaan si benn yoon ndax dafa yaakaaroon ne wala boog dafa foogoon ne daal Adji Yam Seck a xajamal nguuru président Adama Barrow bi a ne moom si boppam waxoon na nag si meeting booba ci meeting boobu sax moom sa waxee tamit ñaalu na kàddu yi nga xam ne nag Adji wax na ko moom du sano nag mu ne meeting boobu ci boppam sax moom moo ko daal di oote woon parce que nag li taw mu daal di oote meeting bi mooy ne groupe boobu nag dañoo bëggoon a génn APRC si ñoo bokk UDP te meeting boobu mu ne UDP seen i yëpp teewu nañ fa bokk na si nag di Ousseynou Dabo ak Adjiyam Secka du sano nag mu ne ci meeting boobu euh, mu ne moom euh, dégg na ne daal gannaaw bu loolu weesoo dafa am nag benn xibaar bi nga xam ne dañ ko génnee mooy nag ci xibaar bi nga xam ne dañ ko jàllale si yéenekaay bi di Standard newspaper foofu nag UDP seen njiit bi gis nañ ne moom daal ay mbiram daal ñu ngi ko def si xët mu njëkk mi ne moom nag moom mooy ki ñuy tànn nañu def ko presidential candidat na si atum 2021 moom Dusaano nag mu ne loolu ba mu ko gisee dafa yaakaaroon ne sax loolu xibaar bu dégguwul la ci la jël téléphone am nag mu daal di woo ki nga xam ne nag moom mooy Ousseynou Dabo pour mu lacce ko xibaar boobu nag ndax lu wér la wala boo ko wérut moom nag mu ne bu demee ba ne daal Ousseynou Dabo nag kàddu yooyu nag moom moo ko daal di wax mu ne loolu daal daf ko naqarlu bu baax a baax parce que Ousseynou moo ko wan li nga gis daal ci yéenekaay bi loolu daal man maa ko wax bëgg naa doon candidat na si atum 2021 daabo naka jamono yooyu fekk na ne mu ngi nekkoon Gambia seen foreign affairs minister bi maanaam jërum bi dénk diggante Gambia ak bitim réew ak Gambien si fa nekk ah, ne nag Barrow yi tamit doon na oo xam ne dafa bokk na ci United Democratic Party bi waaye dafa mujjee ah, tekki am normal tànkam ci parti boobu ñëw nag jiite juróom-benn nit ñi nga xam ne nag ñoom ñoo sos li di ah, coalition bi baro nag wane ne dafa mujjoon a génne fii jamono ci élection yooyu weesu waaye nag Sano wax na taskat xibaar yi ne Dabo daal kàddu yi nga xam ne nag waxoon na ko dafa mel ni moom dafa bëggoon a xaaj UDP maanaam daal tas moo parti bi ak nguuru coalition bi mu ne moom yaa mu suta yaakaar ne Dabo dina mu sa wax kàddu yu mel noonu rawatina nag ci jamono boo xam ne seen doom si boppam daal moom moo jiite lii di nguur gi nag ci réew mi mu ne Aji Yamseh ak Ousseynou Dabo ñoom daal bu bépp xaajala bu am si parti bi di UDP ñoom ñoo ko waral ñoom ñoo bëgg a xajamal nguuruk nga xam ne nag moom mooy baro bi si kàddu yi nga xam ne nag ñu ngi koy wax kon nag parti bi bu demee bay daanu daal wala muy dee nañ xam ne nag ñaar ñooñu nag na mu ah, ñu daal la mu ne ah, ah, ci atum 2020 nag si koy ngénte su ko defee nag ñi si bëgg a bokk daal daal di see bokk na ci réew mi mu ne Daabo daal nekkul nit gore parce que dafa or président bi ndax naka président bu mu génnee naka ci euh, bu mu demee ci présidential yi fekk na nag Daabo mu yoon ci kaso yi président bi nag moo ko taxaw daal di koy génnee naka ci kaso moom ak ñu nam nekk bokk àndaloon nekkoon foofu la ca biir Mile 2 waaye fa génnee rek moom kii di Ousainou Daabo si la commencé di andi waxi sew naka ci biir coalition bi ci la nag problème bi daal euh, jaajëfal Omar Tunkara ci xibaar boobu eh, niki alarba nag am na ay ndaw ndaw Gambien yi nga xamante rek ñu ngi bokk ci kuréel wi ñu gën a ràññee ci GSO. Eh, di yëngu ci wàllu financial engineering ñoom nag ñoo dem gis yi njiitu réew mi di His Excellency eh, président aarama Barrow eh, daal di ko àggee nag xalaat ak yéene bi nga xamante rek am nañ ko pour fexe ba gis ne capital bi mu di Banjul nag dinañ am ñaareelu yoon bi nga xamante rek moom mooy dugg foofule ca Banjul waaye tamit génn Banjul niki àllarba bii nag lañ dem gisee ak njiitu mi ñu àggee ko seen xalaat boobu xibaar boobu ñu ànd seeg Maimouna Diouf. niki àllarba ay ndaw nag ñu jógee ci GSO ñëwoon nañ dem seeti ki nga xam ne nag mooy His Excellency di président Adama Barrow nekk team bi nga xam ne nag ay ndaw rek ko lal ñoom rek li leen tax a jóg mooy pour am beneen tali foofu noonu biir Banjul ndax ñu ne ñoom nag benn tali rek doyul leen comme nag bëgg nañoo def beneen tali foofu noonu ca Banjul su ko defee nag tali bi dina daal di fëla foofu noonu ca Denton Bridge ñu ne nag soo gisee propose bi daal ñu daal di koy jox ki nga xam ne nag mooy his excellence di président Adama Barrow mu ne ndax bànjul daal jamono bi war naa nekk business center moo taxit nag pour mu war a doon business center war naa am ay yoon yu bari su ko defee nag képp koo xam ne mu ngee dugg a ci wàllum business di nga mun a doxi ji sa soxla num la yombee ak ni nga ko buggee gannaaw bi ñu joxee propose bi won ko nag ki nga xam ne nag mooy président Baro moom tamit président Baro daal di leen leen tontu ci mbir mi moom président Baro wax na leen pour ñu seetaat bu baax a baax. ndax yoon bi tey suñ ko defee du lool li nga xam ne nag mooy doomi réew mi tey tamit ñu xool ci waarum koppar bu war a dugg ci yoon bi le team bi nag ku ko jiite muy Mr Faramang Sakho Mr Faramang Sakho nag nekk ki nga xam ne nag mooy jiiteel team bii nii. ci ab waxtaan bi nag ñi fa teewaloon mu nekk ministry bu finance ak works ak ñi nga xam ne nag ñoom lañ jee ooye investment and promotion agency ak ñi nga xam ne ñoom ñooy department bu strategic policy delivery ak ñeneen ak ñeneen Maimouna Diouf Star TV News. jaajëfal Maimouna Diouf ci xibaar boobu European Union bi. Ah, mu di EU ñoom nag eh, ñoo wax ni ki alxames ni génne nañ lu toll ci 22 millions euros ñaar fukk ak ñaari million ci kopparu euros ñu daal di ko dugal eh, ci ñaar national territory bu réewu eh, Gambia pour rek jàppale Gambia dooleel leen ci budget bi nga xamante ne rek ñu ngi koy waajal fii ci biir réew mi ndimbal boobu nag li waral European Union bi àggee ko réewu Gambia pour fexe ba gis ne daal dinañ matal li nga xamante ne moom moo nekk national development plan bi Omar European Union si nangutoo bi nga xam ne am nañ ko ak nguuru Gambia tax na ba yëkkati nañ lu toll si ñaar fukk ak ñaari millions euro may ko nguur gi euh, pour nag ñu jàppale seen bopp ci li jëm ci wàllu koom-koomu réew mi. ci bataaxal bi nga xam ne bind nañ ko daal di koy yóbbante ci këru taskati xibaar yi ci réew mi ñoom naka wane nañ ne koppar boobu li leen si tax a jóg mooy pour jàppale nguur gi nag ci coppite yi politique bi ak i tamit lu waaye nga xam ne ñu ngi koy waaye tamit naka mun a nag gën a samp démocratie gën koy dëgëral naka ci réew mi waaye tamit ci li jëm ci wàllum koppar yi nga xam ne naka ñu koy pasa pasare ci réew mi naka ñu xool naka naka lañ koy defaraate bu baax a baax mooy li ñoo ooyee public finances ñu xool naka nuñ koy euh, defaree ba ndaw naka mun a njëriñ li nga xam ne naka moom mooy askan réew mi fukki fan yi ak juróom-ñeent ci weeru décembre atum 2019 EU nag yëkkati na lu toll si ñaar fukk ak ñaari millions euro daal di koy dugal nak si national trésor bu Gambia mooy arranqué su réew mi foofu nag wan nañ ne dañ ci si euh, contrat bi nga xam ne moom moo dox si diggante Gambie ak lii di EU e bi loolu moo waral nag ñu daal di yóbbante koppar booba EU nag ak Gambie depuis atum 2017 ba tey ji la seen diggante bi gën nañ koo rataxal ndax nag EU booba léegi yëkkati nañ koppar yu toll si juróom-ñaari fukk ak juróom-ñaari millions yu doo pour nag ñu dugal ko ci nguur gi naka ci réew mi loolu nag dañ koy dugal ci wàllum coppite nga xam ne nag nguur gi ñu ngi koy def eh, ci wàllum koppar yi maanaam koom-koom bi ak i tamit liggéey nga xam ne nag ñu ngi koy def réew yu nag seen budget support bi maanaam koppar yi nga xam ne nag ñu ngi ko may nguuru Gambie pour nag ñu dimbale si suñu dépense bi nga xam ne war ñu ngi koy def ci réew Gambia Omar Tunkara Star TV News jaajëfal Omar Tunkara ci xibaar boobu mbokk yi su ko defee dañuy jàll dem seeti xibaar yi bi tiim réew yi euh, réew euh, Guinée Conakry nag ñu ngi waajal élection yu tar ci seen i biir réew ci at bu bees bi mu di atum 2020 war nañoo dugg nekk ci parliamentary election tànn ay député waaye tamit dugg ci presidential election tànn ku bees euh, kuy jiite réewu euh, Guinée Conakry ci jamono ji nag laata ñoo dugg ci election yi gis nañ ne ay tuuma bàyyeekoo na ci opposition bi di tuumal nguur gi euh, ci njiitalu président Alpha Condé di wane nag élection jotagul waaye am na ay rëg yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci waajtaayu élection yi jàpp nañ ne élection yi nguur gi dañ ko bëgg a tardel waaye tamit dafa am rëg-rëg yuy xew ci bindu bi nga xamante ne nit ñi ñu koy bindu pour jot kat ci votaskat yi euh, pour mun a sànni karta ci élection euh, yooyu euh, Abdoulaye Oumou Sow bokk ci opposition bi garal na ay kaddam di xam ne ne daal ñoom nag gannaaw bi nga xamante ne ñu ngi doon dugg ci xeex bi léegi séntu woon nañ ci li leen ci fekk ndaxte ñoom jamono ji daal xeex bi jar na ko ndaxte bu seen bakkan desee si xeex bi sax jaral na leen ko tëj bi nga xamante ne moom lañ leen tëj ci mbir mi naal mu ne loolu daf leen di gën a yokk jom ci biir réewu Guinée Conakry Guinée Conakry nag opposition bi ñu ngi tuumal président bi di Alpha Condé di wane ne dafa bugg a indi ab yéexantal ci élection yi su ko defee mu def coppite ci constitution bi pour mu mun a sàkku ñetteelu mandat gannaaw bi nga xamante ne constitution bi fa nekk tey ñoom nag ràññeewut euh, président Alpha konde pour mu bokk ci jongante yi ñu war a def ci atum 2020 mu di euh, présidentielle élection yi jamono ji nag Alpha Condé gaarale gut ay kàddoom euh, pour dëggal ndax dafa bëgg a bokk ci jongante yi yootu ñetteelu mandat wala du yootu ñetteelu mandat loola nag des naa leer euh, ci président bi mu di Alpha Condé ndaxte gaaralul ci ay kaddu waaye opposition bi nag ñu ngi koy tuumal di wane ne loolu la namu ci biir réewu Guinée Conakry bi looloo waral wàccoon nañ ci mbedd yi nag di ñaawlu loolu nga xamante rek njort nañ ko ci président Alpha Condé Malawi nag seen ib Human Rights Commission bi eh, def nañ seen ib gestu ba tënk ko jamono ji joxoñ baaraamu tuuma police yi ci réewu Malawi eh, di wane nag police yi dafa am sàkku bi nga xamante rek def nañ ko ci ay jigéen yu nekk ci biir réewu Malawi ci seeni i capital bi ah, wax nañu tamit euh, jigéen yooya nekk nañ jigéen yoo xamante ne nii am na ñi nga xamante ne cong nañ leen si dóor leen yaaxal lu jëm seen wàllu ak ak yelleef loola nag mu nga xew ni ki weeru octobre euh, bi nga xamante ne rek moom lañu weesu am na benn jigéen ci ñoom sax mu ngi am lu toll ci fukki euh, mu ngi am lu toll ci fukki ak juróom-ñett ba suuf yeneen jigéen yi nag jàpp nañ ne dañ leen sàkku ñu daal di leen tëddee ci biir tëddoo ci biir li di réewu Malawi ci seen i capital bi mu di Lilongwe jàpp nañu nag am na jigéen yu bari yi nga xamante ne rek àggee nañ leen fitna yi nga xamante ne méngoowut ak euh, seen ak ak seen yelleef ci biir réew moomu euh, ëpp doole ci jigéen ñëpp wax nañ ne ñoom nag dafa am ci luñ doon yëngu ba waral nag jàmmaarloo am seen diggante ak police yi dafa am rallye euh, bu président bi a def mu di pita mu tarika rallye boobu mu bëggoon a def nag nee na ñoom dañu ko buggoon a dàqalu ci capital bi ba looloo waral police yi ñëw nañ nag jàmmaarloo ak yi ñu téye si jigéen yu bari daal leen sàkku tëddoo leen jamono ji nag Human Rights Commission bi ci réew moomu joxoñ na baaraamu tuuma police yi police nag ak nguur gi euh, tontooguñ ci mbir mi waaye nag jamono ji am na sax police officer yu ñu jotal limagum euh, di wane nag dañ leen war a àttee ci biir réewu Malawi. Président Donald Trump bu réew United States of America nag jamono ji ci House of Representatives mu di néegu député bi nekk ci bureau United States of America daal nañ sànni carte ba am nangu toone moom président Donald Trump dañ koy impeach maanaam dañ koy génnee euh, ci jiite bu mu jiite réew United States of America ko waral moo di dafa am yàqute yi nga xamante ne moom la def ci luwaay luwaay yi nekk ci réew United States of America ndaxte war nañu daal euh, doole bi nga xamante ne moom lañ ko may doole booba nag daf ko caaxaane euh, di si def naka sudut noonu ba looloo waral nag mu ngi doon wax ak président bu réew Ukraine pour kooku mun a dugal loxoom ci ni nga xamante ne noonu la élection United States of America di doxee ba looloo waral nag jiite néegu député boobu boobu di Nancy Pelosi jiite na ay ñoñam euh, ñu def fexe ba gis ne sànni nañ ay karta te nag euh, député yi ëpp doole si ñoom li ñu wane mooy président Donald Trump dañ ko war a impeach génnee ko ci boppi nguur gi lu toll ci ñaar téeméer fanweeri député nag ñoom ñoo ànda ci impeachment bi euh, téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo si àndut léegi nag mbir mi dañ koy àggee ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Sénat si te Sénat si nag euh, parti bi Donald Trump bokk mu di républicain si ñoo fa ëpp doole xamuñ ndax ñooña dinañ nangutoo ci mbir moomu am déet waaye nag dinañ leen ko àggee su ko defee ñoom tamit ñu daal di si jël ab matuwaay Afrique fii nag mu di euh, fii ci tundu Afrique ñu bari nag ci africain si ñu ngi lacc seen i bopp ndax ñoom itamit dinañ mun a doxalee noonu seen diggante ak seeni njiit yi nga xamante ne ñoom ñoo leen jiite euh, fii ci biir li di tundu Afrique mbokk yi mujjanteelu xibaar yi fii ci biir kër gi Star TV am mbégte kontante bu baax a baax ci seetaan bu rafet bi euh, seen xarit seen soppe Seydou Camara doo leen doon àggee xibaaru euh, marax yi jaajëfal Mariama Koma ci euh, caméra bi jaajëfal Ibrahima si machine bi jëleen jën jëf wasalaam